asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki réew mi maa ngi leen di nuyu ñëpp di leen sant di leen gërëm ci deru gor deru jullit deru taalibe bu dëkk ci réew mi te lépp tegu ci ay sos ak tuuba ak tooñ ak bëgg a faagaagal nit moo waral koo xam nag yàlla daf laa dénk doole la pouvoir bépp di la sàmmloo nga war a sàmm ba war a jofal war a xontu jur gi ñu bañ a xiif bañ a mar waaye nga yeewu leen joxoolu leen leen lekk joxoolu leen luñ naan teg leen ci condition yi bon ku ko def ku ne day yaakaar yi dina la jikk te yàlla teral la ba noppi nga bëgg a doomu aadama yi ku yàpp ne ku jàpp ne da nga mën ngaa daan nit adduna daan ko àllaaxira yaa ngi nax sa bopp su réew mi nag man am naa ci jàqare am naa ci tiitaange am naa ci tam ak jaaxle ndax réew moo xam ne dañu quatre-vingt-quinze pour cent ay jullit lañu waaye am kenn ku leen jiite nekk ca bopp ba mënoo wax jullit la mënoo wax lan la te njiit dañ koy tànn waaye njiit loo xam ne dafa soxot ñàkk njariñ ba noppi di xeex diine ko yàlla natt nag da nga ko muñ te day mel ne noonu Sénégal yàlla doon nattoo loolu ndax soxat weesuut ne cim réew jiite ko ñuy wax ay opérateur économique wala ñu leen di wax ay homme d'affaires teen bañ daan naane te joo nga war leen ko defal moo di nga placé ay tuyau fu ne ndox ma jote fa ñu naan buñ bëggee toogu toog buñ bëggee sangu sangu defoo ko waaye nga bëgg a sakk teen boobee mën naa ñàkk te loolu weesuwut mooy tëj seeni compte ba mënatuñu am dara nga nangu lépp téye ku ci amoon te jënd ko nga nangu ko walla nga xaaj ko doo ko dugal foo xam ne njëriñu la yóbbu sa soxlay bopp nga koy dugal wala nga jox ko say bokk loolu éñaan féetewu ko kaw moo tax opérateur économique yi sonn nañ homme d'affaires yi son nañ ñaan weesuwul itam Sénégal yi nga xam ne ñoo liggéey ba am seen paas dem bitim réew di fa liggéey di fa yëngu te loo am doo ko mën a dugal ci réew mi. wala nga ne ci réew mi war a am xaalis bu la jógee bitim réew boo xam ne pour pour pour lewal doomu ma lay doon nga bëgg koo jàllale si te doo ko mën a doo ko mën a dugal doo ko doo ci mën a jot am million sax boo ko dugalee day laaj foo ko dugalee foo ko jëlee foo ko nangam nangam bu dee quatre millions wala cinq millions waxi noppi kon loolu. ñaan féete wu ko kaw. ñàkk ñëw itam féetewu kaw bañ diine gi nag moom kenn na ko ndax ñaari at yépp ku fippiwul sa jumaa daa tëj daara alxuraan yi nga boole ci di jëng sëñ daara yi jàngale di di leen tëj ci kaso bi ay juróomi at ay ñetti at ay fukki at di leen tere yalwaante dimbale woo leen féete woo leen fenn loolu kiñaan féete wu kaw njiit nag su fekkee dafa dëng jeng ay àttekatam gën koo dëng gën koo jeng moom réew dana yéex a jag te kat képp koo xam da ngay àtte te àttewoo ci alxuraan borom nee na kooka ab kàccoor la ab yéefar la na naafeq la te kat ëllëg suñ borom dana àtte te àtte suñ borom nag moo gën a jub moo gën a maanu ku àtte fii ak ndëng àtte fii ak ay caaxaan na nga xam ne suñ borom dana la àtte booba te boobaa da nga am gàcc da nga am rus kon réew mi ñu ngi teg ay ñu ngi ñu ngi ay coono te kenn tegu leen ko lool njiitu réew mi fi nekk ba muy bëgg réew mi day dawul jóg Tuuba dafa daan rap-rappe toog ci suuf. day jooy daanaka alañ bara dox diggam ak gàcce googee ba tey yeesu ko waaye tey jii de la mu ragaloon mi ngi koy def gor yi di toroxal di leen duma te kilifa ko ñaan mu làkk te ba de Tuubaa gi ñëw ci kilifa ñu dox diggam ak gàcce waaye nag day mel ni moom kilifa ko ñaan mu gàccal la ndax ñëpp kenn sawratu koo ñor kon njiit li mel noonu ku am yàlla natt na la waaye nag yàlla du tëj bunt tëj fenêtre wàcc bureau mais tëj leer na seen complète yi ndax ñoo yor lépp bëggoon a toroxal Sonko waaye nag sun borom kum nar a dimbale kum nar taxaw kum nar a su suturaal ab jaam lott na ci toroxal la ndax tuuma ji ñu teg Sonko di dara wéru ci te lépp leer na bëgg ko gaañoo tam moo tax pexe yi doon def tey jii yëpp ñu def ko waaye yàlla leer na lépp ku am sañ-sañ nag am doole jàpp yaay buur di bu mi ba loo neex nga def bisimilah yàlla gëmul nelawul te moo fi sax gàcce nag baadool lu ko jub mukk mukk mukk tàggu ca te kuy bëgg a dee ci xare lu mu jiit xeb ko damaa yaakaar nag kuy bëgg a jeexal daa war rafetal waaye waroo ñaawal kii fi nekk day rafetul dara rafetul dara comme réew mi nag dañ cee nekk di ay jullit di ay sénégalais kon luy defar luñ ci xam war nañ ko wax lu yàq luñ ci xam war nañ ko wax ndax noo ko waxoon ci xuddaamal xadim ni dana wax ashadu an la ilaha illa allah lu ñu xam luy defar ci diine war nañ koo wax waaye luñ ci xam lu ko yàq war nañ ko def wax aslamtu nafsi itam doon ay taalibe kon do yoon wi lu ci yàq buñ ko xamee war nañ ko wax luy defar xamee war nañ dëkk ci réew mi nag am dante Sénégal si citoyen kon nag réew mi lu ci war lu ci defar buñ ko xamee war nañ ko wax yàq buñ ko xamee war ko wax loo tax ñu yëkkati suñu kàddu ci suñu turu bopp di naqarlu xew tey ko di ko ñaawlu di ko métti di ko ànd ak nag ñi bokkal pas-pas ñëpp ñi bokkal bëgg réew mi ñi bokkal dëkk ci réew mi di gu réer ci ci réew mi itam gàcce gu réer ci jullit ndax jullit jullit ay bokkam boo gisee ñu yëkk suñu kàddu nag Sonko nag sunu dëkkandoo la noo bokk dëkk si kër góor ba noppi ñu xam ko ci ak ak gëm dara di jullit gëm dina di ko pratiquer bu wéra wéra comme ñoo bokk nag ñoom jàngale ñu jàngale ay tubaab bokk nekk ci réew mi mu gën a leen lim gëm diine te gëmuñu ko di ko pratiquer moo tax suñ ko bëggee daane dañ koy tuumaal ci jigéen wala leen waaye fiir googu mu yàlla raxal na ko li ñu ko bëgg def nag daan doole daan jaay ko doole dong la te doole nag moom kenn dong kam mu yàlla doole ñuy sax yàlla joxe nguur moo koy xañ kon mbëkki ak ñi nga àndal xam ne da fi jóg jóge benn nguur yàlla rek sax soo gannaaw mën naa dem ba réew mi bañ la gert la ba max la puus la gëllëf ci farforce te loolu nag kenn yéenewu la ko soo sañoon da nga fi nekkee na fi Abdoulaye Wade nekke woon am yërmaande nangu kilifteef nangu ndigal loolu taal bi waaye yow bañ la falee te dee bëggoo pare nga wax ne Sénégal nga ne nga waxoon ne sa kilifa yi di ne ay citoyen simple ordinaire lañ loolu nag moo nekk sa xol ba tey ji yaa ngi leen di jéem a gàccal yaa ngi leen di jéem a waaye ak ay jafe akay ay jafe ndax ñoom kat liñ am mayoo leen ko te mënoo leen ko xaj diine leen ko may suñ borom a ko jox jaarale ko ci diine kon diine leen teral islaama leen teral yéen ak àdduna moo la teral te nag comme teral ko ne bis la ñëw mu toroxal maa ngi sant ñëpp di ko def ñëpp salaamaaleykum wa rahmatullah